kama Cheikh Ibrahim la la la la yaay borom de ginni nga no gorel nga no Cheikh Ibrahim la la la la yaay borom de baxal nga no gorel nga no Cheikh Ibrahim la la la la yaay borom de ginni nga no gorel nga no Cheikh Ibrahim la la la la yinkil nga noo defal nga noo Cheikh Ibrahima asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi ziyaare di nuyu ñëpp di wax ne lii moom eh, sant yàlla rek la man sax waru moon jël kàddu si yàlla mu dem ba di ma sant kon boobu ñii la eh, wax sax du ko def may dama ne naa gërëm rek bismillah salli ala sayidina muhammadin wa sallim jërëjëf borom Touba jërëjëf Cheikh Moussa Cissé jërëjëf mu la wax nga ñëw bu fekkee ni nee na am na fi yaa ko laajuloon nga ne ko moom laa soxla bu la nee nag fii loolu amu fi boobaa ba ñëwee dinaa la dimbali dama Cheikh su lay wax ma ne ko nag lu sëriñ Touba amul nag dama ko soxlawul mu ne ma lu ma la wan budul sëriñ Touba na nga bàyyi bu nu tàmbalee ba noppi fii may noppi ci yow ba samp la nga doonub Cheikh boo lu ma la jox te du sëñ Touba bàyyi waaw defe naa ni koo xam ni le 31 décembre 92 nga soobu ba ba tey ji nga nekk ci 2017 muy ñaar fukki at ak ñeent kon defe naa ni kooku léegi lañ ko doon bon a boo gisul sëñ Touba bàyyi te tey ji muy gën a dox kon demandé ni daa gis sañ Touba bu wér ca lam doon wax waaw bu ko defee li gaar gaa yi lépp gaar nañu nun ñëpp jaar nañu fi kenn ku nekk fi mu ne ci murit da ngay defee ne fi nga toll kenn rawule ci sëñ Touba waaye li wér te wóor mooy ku ci yegseegul fii nu ci yegsee bu doon ab étage la mané ya yaa ngi taxaw ci escalier yéeg go sax waaw am nga pass passu bi yéeg nag waaye pour dem ca kaw moom defa goo ko seqe goo benn tànk foofu jaar nañ fi ba jàll ngir rek nit ñi xam ne murit day yegg waaye du du du du riirandoo loolu dinaa ko leeral insha allah keroog ba ma ko ba ma ko waxee ma ne ko jëmuma fenn ma ne nuñ koy waxee mu ne ma yaa ngeen jàpp ma ne ko waaw maa ngeen jàpp maa sëñ daama ngeen jàpp mu ne kon nag da ngay wax ne Eh, Cheikh Souleymane ñaan jébbal naa la sa bopp ngir nga eggale ma ci yàlla te yàlla rek tax man ba léegi sensé wu ma lool de noonu laay nangoo njébbal de noonee mu ma ko waxee yokkuma ci dara wàññiwu ma ci dara képp ku jébbalu ci man loolu laa lay wax ma wax ko mu ne ma waxaat ko ma wax ko mu ne waxaat ko fekk taalu bi yaa ngi fees dell ci néeg bi néeg boobu ma daan wax ni filaa sooboo léegi jamono sensé na ko ba mu nekk tabax waaye néegu ñax la wan boo xam ni dañoo tabax ci suuf rek yëkkati néegu ñax teg ci kaw ba ma ko waxee ñett yoon mbooloo mi yëpp a ngi teew mu mel ni dañuy takku sëy moo tax ma ni jébbalu day am seere jébbalu day am seere bu ko defee bu ëllëgee ñu xam ne ni ñuy takk sëy bu ñu ko xisee takk kenn ku ko gisati xam ni kii am na jëkkër waaye tamit a ah, jébbalu day am seere ah dugg ci lislaam day am seere moo tax ma ni koy wax nii baa ngi fees dell ak i Baay ñoom ñëpp ñu seere ni man mii soobu naa ci yegg ci yàlla waaye nag Sëriñ Tuubaa ndax bëgguma woon booba ni murit ba noppi sooboo feneen boo xam ni bu boobaa mën nañ ma ni kat fii nga yow soobu kat fi ngay féete te kon bu boobaa yoon turu murit gi day soppeeku te kon bu boobaa dina doon jax-jax ci sama xol moo tax mu ne ma ne kon nag man li Serigne Touba am laa soxla Serigne Bamba mi nga xam ne day settee te liggéey bi moo ko liggéey ba mu jar mu indi ko tasaare ko ci àdduna bi yëpp moom day settee mu ne kon nag loo jublu murit nga ca waaye man muritullaahi laa woote muridullahi jooju nag nag kenn ku ne dinaa ko leeral kenn ku ne xam yaa ngi ci muridullahi wala murid dong nga wala murid saadix nga wala ma riirandoo nga ñent yooyu dañ koy nañ ko xàmmee bu baax a baax muridullahi ak murid saadix ak murid dong ak ma riirandoo ñent yooyu ñoo am bu ko defee boo ci nekk nag yaa koy xamal sa bopp waaye man dinaa ko leeral man nag maa ngi ci muridullahi ak ñi ma toogal fii ci tànt bi kenn ku nekk mi ngi ci muridullahi ndax moo bàyyi fii ndax bu doon tàntu gërëmante ak santante ba nëgëni fii fépp fees na dell waaye nag tàntu waxante dëgg la moo tax du nu jeyante te ànd boo xam ne jeyante ko indi ak eh, la cay mujj mooy wéet jëwante rek waaw mu daal di mu daal di tas loola tax nun ànd bu yàlla sosul rek la cay mujj mooy tàggoo rek ànd ba ànd jeex kon ànd te yàlla tax moo ci gën bu ko defee muridullahi mooy ni ko Cheikh Bamba ak Cheikh Ibrahima Fall ànde Cheikh Ibrahima Fall dafa ñëw ci mbacke kadior ñaar fukki fan ci wéru koor ñaar fukki fan yoy ci wéru koor la cheikh ibra janok cheikh ahmad bamba ni ko dara génnewuma sama neek ludul cheikh bu egg ci yalla te man ma yeggal ci yalla te cheikh bobé day bu ma mom dina gis ci leerug jëm nga leer go xamni moy dindi lëndami jaam te cheikh bobé day bu ma deman ba ñew fekk ko ab bamélam rek lañ mané mo né fi bammel bobé dina fa tok ba lama ma sama borom may mako ci lolou la Cheikh Ibrahima Fall wax Cheikh Ahmad Bamba mbak non lañ jaayante Cheikh Ahmad Bamba nek serigne Cheikh Moussa ndiamé borom daru niko man mi de Ibrahima Fall lima fi indi le loolu loolu nga wax mo mo doxan sama ak sama gele muy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne ko man mi de bu fekkan ni ñewna ci daru dunya gi fekkuma fi dara dara dara lu jeexit wo xamne ne na ma asamaan si ak biddiw yi ñoo doon tim rasulaay sallallahu alayhi mu di ko gis as ay ci la doon dox ñaar yooyu képp bu ma ko fekkan kese ñaar yooyu sama yitte ak sama pospos dina ma jox la nga xam ni moom laa mébatan ci rasulaay sallallahu alayhi yàlla jox ma ko ci sama yéene jooju ndax bi a'maalu binniyaati gis nga ko daal di ne ko nag kon li ngay wut fii am na fi waaye li koy maye de mooy jaayante mu ne ci jaayante ñu naan mu ne juróom benn weer nga fi am yo juróom benn at nga fi am yoo xam ne doomam sam xëy doomam sam ngot doo fi am mbaar mu la keral sax waxuma laa soxna doo ko fi am de Cheikh ibrahim Fall sukk ba jàkk ne ko man day àdduna gii lu tol ne fepp kawar ci bopp taxumaa jóg man kërug àllaaxira ga rek moo tax ëllëg ga rek tax a kon nag ñoom ñaar loolu lan jaayante mu ne ko kon nag na nga daal di toog te déglu ndigal jëfe ndigal bàyyi tere mu nangul ko mu jog taxaw Cheikh Cheikh Bamba jog taxaw takku wu ba dëgër Cheikh Ibra boof waaye diiru wax ja limuy yag yag bu Cheikh Bamba joge Cheikh Ibra day taxaw bu nagame bu yegge suuf Cheikh Ibra yegg suuf waye ba jaayante ba jotee nak Cheikh Ibra da boof sëñ Bamba jog taxaw tim ko motax tax ba ni ba ni mu wacce liggéey bu ñëwee fi Cheikh Ibra bu Cheikh Ibra ñëwee fi sëñ Bamba day teud Cheikh Ibra day defeenu Cheikh Bamba tok bu fekkee Cheikh Ra Cheikh Cheikh taxaw Cheikh Ibra day day sukk aay Cheikh Souley bu nu amoon fukki gaa yu mel ni moom ku demee ni Cheikh Souley ak Cheikh Moussa Touré waaw ñu mel noonu fii ci Ndakaaru ñoo toj Ndakaaru ba nooy nepp ay gaayam ñu bàyyi leen ñuy dem Cheikh Moussa Touré ay dongam fu ko neex nañ dem Cheikh Souleymane ay dongam fu leen neex nañ dem bu nit boo ko defaree ba noppi loo koy fiire sa soxna kay bu la wóoree ni sa dépasse bi doy na ko te du mooy yàlla fu ko neex na dem ah li rekk la leneen. waye bu fekke ni fum dox yang koy top do sa sam wax da doyul sam code doyul rek nga yakkar ni bu génnee mën a defi leneen nañ leen góorgóorlu te ñaanal Cheikh sulay mu yàgg fi te kon sam yi rek kam ñent sam keppam am te sàmm bu nek la nga don sam ëllëg dinañ la ko laaj kullukum rahin wa kullukum masulun an rahiyatihi borom kër gi ab samula la ci njabotam soxna si ab sam la ci alali jëkkëram taw bi ab sam la ci alali bayam sëriñ bi ab sàmm la ci taalibe yi yonent bi ab sàmm la ci saaba yi ak jullit yépp yàlla mooy sàmm bu mag bi sàmmal boppam te du róoral du réeral waaye mu jox ko nit ñi ngir bëgg a doon ab buur nit ñi doon ab jaam loolu yàlla rek ko yeyoo sàmm yooyu nag ñeent sàmm yi moo am bii sàmm dana dana de bu xëyee sàmmi bu ngoonee moom ci boppam dana dana ñëw waaye jur ga du ñëw bi sam mom ci bopam bu ngone jurga mom ci bopam du ñew way jurga ñoy ñew bi sam mom ci bopam bu ngone du ñew jurga du ñew bi sam nak mom bu ngone dana ànd ak jur jof ci jof ci bu rafet ñent sam yi rek am kon nak ay sam lañ ko tudde way wa tilkal amsaalu nadribuhaa linnaasi la yatafakkaruun yatafakkarun yalla neena li kat suma ko waxe ci alquran damay teural misal rek ngir ngeen te xellu yeen yi nga xamni borom mi xel ngeen kon sam yoyu du ay sam ni rek sëriñ bi lay wax neena bi bii ñi jebul ci mom ñep mom sëriñ bobu xam nga ne bu jur day lu jur gi bari bari wenn nak wenn yet rek mo len di sam waaye nit moom lu nit ñi bari bari kenn nit ku nekk ak yatam moo tax sëriñ boo xam ni junniy taalibe aju na ci yow su fekkee ni nar nga kenn ku nekk la tax mu bandee mbaam fii teg yow di nga ko def ci moom asalaamaaleykum lii lañ doon defal ci isin ñaari tëli ñaar fukki fan ci weeru mai ci kër sëñ Mouhamadou Ndiaye ja taalibe sëñ Ibrahima yal nañ yàlla defal jàmm ak déggal toog bi jaay su jot liñ fi lax lépp yal na di ay njëriñ bi jaay su jot barke Xaadim Rasul barke Borom Tuubaa barke Cheikh Moussa alhamdulilahi rabbil la alhamdulilahi la alamin kàddu cant ak ngërëm suñu baay ba lam ñu njëkk jàngal mooy saxleen ci alhamdulilah képp ku sax ci alhamdulilah dinga mës na alhamdulilah kon boog alhamdulilahi rabil alamin ah, Ahmed Ndiaye dafa taxawal cant yàlla ñu dem ba tey mu ne tey day def examen dem defi examen trois heures ñu organiser ko mu ñëw te yàlla na la in sakartum lazidannakum Dieu parle en parabole kon li ngay sàkku yépp am nañu yaakaar wala yaqin ne mat na waaye leneen li gën a yéeme mooy bi may woo sang ñaan ci suba naa ko ah Ahmed Ndiaye de moo aye tey dafa ne waaw góor jaa jëf waaw ah, kon dey mi ngi yaatu loolooy mébétam Grand Dakar la woon nekk ci ba sëñ Balla Ñang toj fii Liberté 3 ci booru police ñu ne déet amet woote fii tey kon mbir maa ngoog moo yóbbu boppam ah ñuy ñaan rek ngeen gën a tonawu yéen xale yi dañ leen gunge rek pays bi yéen la pays bi yéen la taalibe yi ñëwaguñu kon boog xam leen ne yéen ñëpp ay sëriñ ngeen kon tonawu gor góorgóorlu len gestu len ndax domi mbar nañ ne ko mën jangi jàngi ndax dees ko mës ñam te fi axlu bi toll ñu de leer nañu ne lépp a ngi ci loxo sang bi amul sikki sak barki demb lañ jóge mbour waa mbuur yëpp delluwaat nañ ne ñu ngi ci loxo sang bi biñ koy woo di ko yëgal loolu mu yebal ñu Kaolack ñu yend ca gaynde passoir mu seedeel ko seede yoo xam ne sang bi yebal nañu ci gaynde passoir fa la ñu yendu keroog teral nañu yii teranga ba pare seede woo jëwrinam yépp ñu toog mu seede seen kanam seede loo xam ne nee na sang bi moo ko yabal doomam bay aas ak doomam bu jigéen ñu ziyaare ji ko mu ne sang bu bëggoon moom mu déplacé ziyaare si ko mu déplacé ziyaare si ko cantam gu rëy gi muy def Kaolack sang ñaan a ko tëj waxtaan fa waxtaan wu kowe mu kontaan ci lool kon bokk waxtu wee ñu xaj kay xoj ah mënuñu woon ñàkk wàcce kàddu yooyu kon bokk ah jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf jaa jëf ah mbir maa ngoog xam leen ne tàmbali boo gis nii la waaye nag ab sant yàlla moom yàllaa ko yoral boppam day gën di màgg rek jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. maanaam boobu ba léegi ñi nga ànd ak ñoom bu nu teggee yoon ñu teg ñu ci yoon bu baax a baax a baax a baax ñu leen di gërëm maanaam ci xel ak ci jëmm ñu ngi baral nag cant sunu ay wayjur sunu wayjur bu góor ak sunu wayjur bu jigéen yàlla dogal na maanaam wute nañ bés bi waaye nag waaw ñoom ñu nekkal fële ñu nekkal leen fii rek kon ñu ngi leen gërëm bu baax a baax a baax di gërëm tamit suñuy dëkkandoo di leen baalu àq di leen masawu coono ndax wax dëgg yàlla maanaam lii amaana am na ñoo xam ne nii mi ngi leen di déranger ñu ngi leen koy jéggal bu baax a baax a baax di beral tamit ak cant sunu nijaay ji nga xam ni moom la ñu dëkkal ci kër gi nga xam ni ban fii dalee nekk ba léegi ab diir la yàgg na lool euh, muy euh, sëriñ Pape Mbengue boobu ba léegi wax dëgg yàlla yàgg na mosuñoo wax wax bu ñagas mosuñoo wax kanam goo xam ne nii day tax maanaam ñu bëgg dem wala dara chaque jour dañuy gis ni. jappé nanu comme bopam té jox nañu cër respecté nañu donte ay ay tout tank lan mu nek di nuy tamit sama tante nga xamni ni sama yaay bop la kok sama yaay la muy euh, sama yaay jee la yalla dafa togal manam itté moko tap mu bayé ko fi dem mbuur way ñu xam ni xelam ak xolam yépp mi ngi fi ndax tay ji manam mbir bi ñu koy préparé lépp moko ko doon def kon tay jii bu démé ba bés bi ñëw téw mu ute ko rek man utte la rek ñu koy nangul bu baax mu ngi ñom moñu téwul teewal rek ñu tamit ñu téwul ko fi dong manam di wone ni bëgg nañ rek bëgg nañ bu baax a baax bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin أري قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس صدور الناس من شر لخيرك لا نسكو إلى الورى أمر وما إننا إليك الرجاء ولسنا نخاف الدار من سوء الدر من سوء كذلك لا نخاف وأهل ناقل سرفا ومنهما إلى آخره وفيما مدى مدد أقسم وفيما سيأتي فليكن ساورا سيرا فمن مستكن فقرا ومن مستكن ومن مستكن مستكن منهما فكن دافع السقوى جميع بلطف يكن ربا رؤوفا بنا ويا هل من الناس رأي ما ابن أبا سلام وقوف سلل قد وقفنا ببابكم وإنا لنرجو منكم الفتح والنصر laqad daaqa al waqti wastada amru fa farig ilaa karbana wa dafa dura wa barik li ahli sayxi dina wa inkisaara minhu wa sarmadan jabra alayhi ridaara maanu fi kulli saatin bi maqdami sami ajal wa raxada alayhi salatu lahi suma salam bi alin wa saabin lahul akmal amra wa salliyan ala nabi wa sallim wa qib tawil lana humrana sahil lana badana wa hab lana rushda wa tawfiq tawil umurana bi taqwallahi wa sudi wal majdi wa sikrallahi warsuq lana risqan halalan tayyiba bila masaqil mar يا فادلا فضل الخلاق يا من به فرق الملاخ يا الله يا رزاق يا وهاب يا مجيب يا ذا الجلال والاكرام الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد امين يا رب كنت ان لول بسبي تي نكو سيني بروم دوندالي بسبي ماغنا كاوينا نيهنا بارينا يال نانكو في تيو ديوين تي بارك لا اله الا الله دي نيان تي جامي ني نيانال ما تي يالا yàlla wéral baat bi ba ñu mën a tàllal leer gi mën a yëkkati baat bi di ci biggal jàmm ñi ci barke Seex Musaa Si Njaay borom daaru Mohamed yal na yàlla jàppale la ci barke laa ilaaha illallaah góor yàlla bi yow it maa ngi lay ziar di la ñaanal ci yàlla borom jàmm ñi lii nga yor di ko def tey di teewlu kàddi jaam ñi caméra bii nga yor lépp loo ciy sàkku maa ngi ñaan ci barke Seex Suleymaan ñaan barke Seex Musaa Si Njaay borom daaru yalla la ko borom jami defal yalla la yalla yekati kawel la ci barke la ilaha illa Allah. barke sem sa si jami borom dar bak sa usine ben tali ah don tew si ci tiant go xamne ne sunu doom waaw sunu mbokku taalibe sunu dom sunu soppe sunu harit mohammed mohammed ah moñu ci invité won waaw mu don nak tiant ci ñun ñep ndax ñun fuñu tollu ah dañuy wax rek jërëjëf Cheikh Moussa jërëjëf borom daaru jërëjëf borom daaru sant dañu sant bu wér a wér di gërëm bu baax a baax a baax di dalee sant bi ak gërëm gi ci yàlla sunu borom bi nga xam ne moo ñu sàkk amal ñu ba pare ameel ñu li nga xam ne moom la mos ba keroog ñu koy fekk si moom yàlla moomu noonu tey jii dogal ñuy dox ba leen teg jëmm ji nga xam ni moom moo ñu tegtal jëmm yàlla ji ba pare maanaam xamal ñu ci li nga xam ne moom lañ xam ba tey jii ñoo ñooñu mën a taxaw di sant ngir xam-xam googu noonu kon tamit dañuy bëralaat cant gi rek jëmalaat ko ci maanaam mu sang yoo xam ne tey ji teewoon nañ fi ak mbooleemu góor yàlla yi nga xam ne tey ji maanaam teew nañ ci bés bi góor yàlla yi nag maanaam li ñuy wax ni yàlla leen uy si comme ni ma ko waxee sànq yàlla lan uy si uy si ñu ma ndax li nga xam ne moom laa yëg tey jii maanaam bay sant yàlla ñoom kenn ku ci nekk loolu lañ def ci yow ba nga yëg ko maanaam ñëw wuy maanaam dama leen dama leen cee dama dama leen cee jiitu rek waaye kenn ku ci nekk maanaam tey ji ba sañoon maanaam samp bës bi sant jëmale ci li nga xam ne moom la ñu xamal waaw kon waaw loolu rek moo waraloon tey ji bés bi ñu ngi bu wér a wér a wér a wér di bu baax a a baax maam ñu ngi lay sant bu wér a wér a wér yéen tamit di sant bu baax a baax a baax ndax euh, bés bi yéex nañ la ko yëgal bi nee suba lañ la ko yëgal te gis nañ teewaay bi nga xam ni moom nga def ñu lay ci sant bu wér ba pare def ci sa xaalis ba pare yàq sa temps tànk dafa leen gudd ci li nga xam ne moom ngeen yëngu yàlla defal leen ko télé bi nekk télé boo xam ne ni maanaam fépp ci àdduna day nekk lu ñuy xool lu ñuy ràññee lu ñuy béggee bi jaay Seydina Mohamed barke borom daaru